mais aussi économie bi quelque part. kii euh, Maria. les circulations métti na de tey les non trop euh, non les gens ne plus. Mm -hmm. ne produisent ne produisent même plus. mais euh, en fait la situation moi je crois que dama ne on a on a on a laissé beaucoup d'erreurs s'accumuler dañu bàyyi lu bëri tegaloo et à chaque fois bu amee problème. dañuy xale yi dañuy def ni xale yi di wax rek taf yëngal. après on avance. voilà après dem. donc loolu euh, c' est c' est apparu vers la fin du règne de Wade. ok euh, Wade il a dafa hérité ci consensus su politique consensuelle lu Abdou Diouf daf daf ko hérité. Mhm. mais vers la fin de son magistère dafa commencé nag li ñu naan la gouvernance solitaire. Euh, bëggatul dégg bëggatul même bu dee ni nga ko waxee daana nangu daana def ay concessions. Mhm. parce que Wade il a fait l'opposition vingt six ans d'opposition xam na xam na luy rapport de force mhm. moom xam na ko c'est un peu c'est différent quand même du président Macky mhm. qui n'a pas été opposant ah, sur ça, en fait. une lo, sur cette longue durée épreuve yi Abdoulaye Wade ah, jaar Macky jaaru fa Wade comme Sonko nii mais il a été brimé brimé brimé brimé sonn donc moom day mesurer un peu bu ful jógee day mesurer la rapport de force mhm. et pour euh, benn benn benn benn benn exemple quand il la manifestation de m moom dans sa tête dafa jàpp ni que ay nitam muñ jógee manifester ñeneen ñi contrôle il serait insignifiant moom c'est moom noonu la ko jàppee woon mais bi affaire yi amee mu gis ni que vraiment le rapport de force de l'autre côté gars yi wax ak moom mu ne bon d'accord on retire le projet de mm-hmm. mais loolu nag il faut un vécu je dis pas que le président Macky n'a pas de vécu politique il a un vécu politique mais il n'a pas un vécu d'opposant donc ah, mënul apprécier euh, moom tey sa logique elle est très simple mooy maa yore nguur gi maa yore lii maa yore takk der yi maa yore lii ak lii ak lii moom c'est comme ça qu'il réfléchit mooy maanaam on se conforme à la mais boo bëggee ne sénégalais wala un opposant mu conformer wu à la yow day fekk yow it ak ñii ànd ak yow nga demandé leen ñu conformer wu à donc bu boobaa àtte bi day day yomb mais lii Ousmane Sonko di di vivre actuellement je voudrais pas revenir sur les propos du doyen Albert mais il faut le dire cest à c'est c'est unique dans l'histoire politique du Sénégal mm -hmm. c'est unique dans l'histoire politique du Sénégal léegi quelle l'alternative qui s'offre à lui mooy c'est un fameux slogan résistance résistance résistance parce que dama mos a wax benn jour euh, dama ne ces deux la ku ci nekk ci ñoom yaa ngi transposer sa peur sur les sénégalais parce que ñoom ñaar ñëpp. ils ont ñu wax ko wala ñu bañ ko wax ils ont peur. et si seeni peur ils sont en train de transposer ça sur les populations. Hmm. de l'autre côté Ousmane Sonko il tient un bout mooy maanaam il a une population il a des militants il a des sympathisants jeunes qui sont la te loolu dañ prouver à plusieurs reprises. ni que ces la là lui sont acquis entièrement de l'autre côté président il a ses force de sécurité donc ñooñu pour que ñu déggoo ni ko Albert waxee ça va être extrêmement difficile il faut que kii nga xam ne mooy président de la République moom rek moo mun a wàcc à un certain niveau comprendre que le destin du les destins, le destin du Sénégal se trouve entre ses mais pas entre les mains de Ousmane Sonko ni les maires de l'opposition moo tax il faut que moom ci boppam la nga xam ne moom la ko yoon may constitution may ko mu mun def ni Ablaye Wade def concession c'est je je l'ai rappelé hier il a les canaux nécessaires il a les canaux pour que situation bi xoolal calme dans les quarante-huit heures mm -hmm. il a il a les mais ça dépend ndax bëgg na ko wala bëgg ko